maa ngi fii la ci dëkku Cheikh Ahmed Bamba bi nga xam ne mu ne ni ma ñëpp sant la borom bi subhaanahu wa taala kuy murit rek yaa ngi dëgmal Cheikh Ahmed Bamba man de làqoo naa ko jumaa yi Tuubaa yi ak sooroon barke Cheikhul Khadim làqoo ko Alaaji Fadilu Mohamed man daal man tey de bu soobee yàlla incha allah neexee sama borom diggante 3 heures du matin 4 heures du matin dinaa ko julli salaatu tasbih ay waay moom asbuna laawuma ko wa nihmal wakiil wa nihmal mawlaa ay waay asbuna laawuma la wa nihmal wakiil wa nihmal mawlaa ah man nag danaa xam ni am na yoo xam ni man man ma ko ci ci ci ci ci ci ci TikTok waaye mi ngi may tooñ de tooñ na boo ci kanam yàlla moom na seet askanu kër ndeyam mbaa askanu kër baayam mbaa ko mu dese ci dëkk bi mu tàggu mu mu mu tàggal ma jotoo la man dara maa ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa yéen Sénégal yëpp na nga ñu ñaanal gudd fan bu ànd ak wér maa ngi ñaanal waa Sénégal yëpp gudd fan bu ànd ak wér ku ñu ci màggal ji yal na la yàlla suturaal ci kattanu borom bi yàlla indi la ci jàmm dana la jàmm ci jàmm ba nga yëg sa kër man maa ngi dee ci kër sama kër la jërëjëf Cheikh Khadim